بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابي دعا زكرياء ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء يا كتاب Yeah. aleykum wa rahmatullahi sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la siyaare di la ñaanal suñ boroom yokk fan wi ak wér gi gën leen a laqal ngërëmal sëriñ bi ngeen di wut mbokk yi ma sëriñ Abdul Xaadir Ñang sëñ Modou Xari Ñang ak sëriñ maam sëriñ ja muy kenn ci jàngalekati alxuraan yi ne ci dëkk bi sëriñ Fallou Seck ah. ah waaw suñu moom moom sëñ Abdou Salaam Seck moom sëñ Fallou. inspecteur la en langue arabe dafa bokk ci ñi nga xam ne gouvernement bi daf leen a jox université bi ñu ñëw ci disposition wu sëñ bi ngir war a jàpp ci liggéey bi eh, ñu ngi indi nuyoo sa mbokk ma. sëñ Modou Xaban moom Cheikh Mamadou Fadal mii sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci. Euh, moom la sëriñ bi dénk lépp lu jëm ci mbirum alxuraan ji euh, ñu wuutu ko ci euh, ñëw fii di siyaare di ndokkeel am na xalaat boo xam ne ci jamono yii weesu dafa bàyyi ko woon ci sëriñ Jili mii ak ay bokk yi muy alxuraan ak sëriñ bi moom ku ne xam na ko. ba xam naa ne at mi ñu génn sax mbégte yooyu ci am yëg nañ ne fekk na la fii mooy daanaka xëccoo yi am ci biir réew mi ci Afrique ak ci àddina bi li ci ëpp ci alxuraan waa Touba ñoo ko jël léegi nag on xalaatub nag waaye ñooñee koy woote nag wooteel ko sëñ Touba mu woote ci jaay sab alxuraan sëñ Touba ci gën a yeey ñu amee xalaat boobu nag la dem ci sëñ moo Xabaan ne ko kat waatul bi tamit ab waa bi ginnaaw yow la sëriñ bi dénk lu jëm ci alxuraan ji xalaat bii amoon nañ ko mu ne kon nañ nañ àgg ca sëriñ bu mag ba ànd ca ba ca sëriñ Muntaxa leeral ko ko mu bëgg ca lool sant ca soññee ca wax xam le ne jot na sëkk ndax ginnaaw fu ne lañuy dem di ko jëli eh, kon wooteel ko boroom jot na ca lañ daal di soobu nag di am na ñoo xam ne ni leen yàlla def ci mbir mi eh, waruñu koo dégg rek noonu moo tax tàmbale woon nañ ci kilifa yi ci boppi kër yi njabooti sëriñ bi mel ne sëriñ Sidi sëriñ Ahmadul Muxtaar sëriñ Abo sëñ Cheikh ci ay bi ci moom sëñ Salih ci ay bis gi rek lañ euh, euh, xel Xelkom ñu ngi doon wër daal euh, ci kilifa yi noonu waaye ci biir wër bi nag donte demoon nañ sëñ Abo. fii moom ñun xam nañu seen taxawaay ci njaboot gi yëpp waaye rawat na ci alxuraan ji moo tax biñ ci waxtaanee li naa waaw moom de loolu bu koy dégg rek biñ dikkee kër gi fes ndel waaye bi biñ ko yëgee rek li li firnde la ci te xamagoo woon sax lu tax ñu jóg ay ginnaaw tudd dañ suñu tudd alxuraan ji rek taxaw nañ leen moom lu ñu mën a def moom nañ ci àgg bam leer ko ne eh, ay donga yu cay liggéeyal sëriñ bi ci dajale ay gone dañ koo yaatalit nag ci biir réew mi ba am na sax ci bitim réew mi ñoo xam ne war nañoo jóge Mauritanie ak war a jógee Burkina Faso ñu ñëw bokk si ci ñu defal leen ab musaabaxa tari alxuraan def ko ci fànn yu yéeme ndax dana am ñu ko mokkal mën koo tajwid waaye sax mën koo tafsir moom mooy faron faron bu mag bi am na bu ci topp ñu ko mokkal mën koo tajwid tajwid bu rafet gone yi nga xam ne ñoom it dañuy jàng te àggaguñ te lii di ab soññee ñi ci mën a njàng jàng mu rafet ñu boole leen ci muy ñetti faran ñu bëgg buñ aggé ci wéru safar yu bu téro ñaari fan yi ak ñett ñu dajalé leen sét li tari bañ doon def ci kër sëñ Tuubaa gée ci Daaru manan ci garage Dakar. wa kay aggé ci ñentelu fanu safar ba euh ñu def ko muy bis ba nga xamné ci def jotaay bu mag ba euh, goné yépp ñëw gaaral ñu jox leen ay neexal ñentelu fanu safar rabiu safar moom it biñ ko junjee ne weeru safar la kilifa yi ne raabion safar de moom euh, euh, euh, luñ ca def ak ubbite mu jëm ci màggal gi tamit alxuraan ñu ne kon moom sëriñ bi rek la ñuy liggéeyal ni ko ni ngeen ko junjee rek. waaw kay ñu ngi gannaaw buñ jégloo kon bi kilifa yi junjee ci raabion safar bi ñu ne ah kay incha allah kon ñu jàpp ko ca bëgg buñ ca àggee su ko defee dajale. gone yoy yu ci bir rew mi mo xam ña ca di ay taalibe ak ñi ci ndax njabootu alxuraan moom ñëpp njabootu serigne bé yaatal ko sax ba ci Afrique yaakar nañ ni inshallah ci kanam dana yaatu ba mën romb sax Afrique mën wo ci adina bépp jaayisa bo xamné ne Cheikh Ahmadul khadim lil quraanil karim kon mo taxon ñi ne nañ aksi ba ci yow leral la ko sant ca it ci biñ ko xis yëkkatee. mbooleem njabootuk sëriñ bi kuñ ca dem rek day wax ne moom dafa mel ne luy door a jot la waaye ci xel yëpp la nekkoon te ñun ñëpp ngeen ci wuutu mbokki taalibe it noonu lañ ci ànde ñi ciy borom xam-xam yi ci dëkk bi ñëpp ànd nañ taxaw mbooleem commission yi nga xam ne war nañ koo taxawal euh, borom man-man yi sax ña ngay góorlu ñu ca nekk lañ man ñu di ko def ngir bu ñu ci àggee euh, jaayisa bi noonu nga xam ne noonu la tudd mu amee ni ak ràññeeku nga xamne ni serigne bek alxuraan ràññi ko suñ ca àggee tamit tariba alxuraan ja dana sété nonu rafété nonu neexal yiñ leen di neexalit dana nek faayixal maqis nga xamne na serigne bi daan jëfëndiko ci alxuraan ba kenn mënagul dara la daan toppatoo ñakoy jang ak bind di leen neexal bu baaxa baax tay ji nak donga yi bëgg wuutu loolu euh, yëkëtil ko serigne bi and ci ak mbolo mi yëpp euh, mbooloo mi ñu ngi ci wuy si ndax bi liggéey bi tàmbalee dañoo xool ñi ci bëgg a jàpp yoon wuñ ko war a jaare ñu ne moom de yoonu murit yàgg naa jaayante yàgg naa joxe àddiya ñu ne kon ginnaaw sëriñ beeg alxuraan la dañuy jël kaamil bi ubbi ko ay saar saar wu nekk euh, ku ko mën a jël defal ca sëriñ bi euh, juróom benn fukki junni loola def nañ ko benn kaamil ba mu àgg ba beneen tàmbaliwaat am na it ñeneen ñoo xam ne ñu ngi coobarewu seen man-man agut ci fofu way lañ man ñi diko def ngir buñ ci àggee rek inshallah allahu eh, ñoom ñëpp eh, la ca dajale ñu jë ñu mën koo neexale xalé yi muy neexal bo xam dana kawé bépp neexal bu nit mas yëkëti ta ñu ne nañ fi ak ñaan lu ko eh, te di ci sakku barke. ñu ngi di nuyu bu baax suñu xaal yi nuyu suñu jili ñang ak nga andal yëpp. sëñ bi bëgg nañ ci teewaay bu baax a baax Mbàkke nag lii euh, yoon waxuma yoonu murid sax nag yem ci waaye àdduna bépp yëg nañ lii lii ñuy waajal ñoom ñi muy gone yi nga xam ne yàlla dafa def ci ñoom alxuraan ñu bëgg leen ci encouragé bañ ko yemal ci ay wax am lu ñu leen di jox ngir loolu mën a dem mu mel ni loolu sëñ bi lañ ci gendiku ndax moom la daan def bi mu nekkee njariñ ndax man mii bind naa ab kaamil jox ko sëriñ Saliou mu xool ko ne ma ni sëñ bi daan def sax de mënuma ko waaye dinaa ci barkeelu ndax da daan def ko ko jox yére yi nga fekk mu yor ko moom lay dindi noonu la ma ko waxee moom lay dindi jox la yére yooyu man nag loolu xam naa duma ko man waaye lii laay barkeeloo ci yére yooyu mu daan def te alxuraan loolu la jaraloon sëñ bi wax nañ ni benn bis xëy na jënd bind jënd juróom-ñeenti téeméeri kaamil ci benn bis ba noppi it kaamil yu xottiku sax am na ci yoo xam ne këyit day xottiku <laughs> waaye sëñ Mamadou Lamine Diop Dagana nag moo ko waxee nu neex nee na xam naa ne sëñ bi daan jubloo sarax ñooy di ko jaare ci loolu mel na ni mel na ni kaamil yu xottiku yi mu daan jënd ku ne xam na ne kaamil li muy baax nag bu xottiku rek wax dëgg yàlla te yu xottiku mën naa am nag da ko daan jënd di ko dajale nee na fu waaye jëlee sab kaamil mu laaj ko rek nga ne Sëñ Tuubaa ci gën a jëg te boo ñëwee mu jënd ko kon ñoom nii lii ñuy def nii cër bu ñu wut Sëñ Tuubaa yàlla dafa dogal bi ñuy wax bi ñuy ba may waxtaan ak yow léegi sa diggante ak alxuraan man xawuma ne ñu ngi fi dafa mel ni fii daal gis naa ne asaar amul fii amul fenn ci kër Sëñ rek waaye amul fii ndax gis naa ne lu ñu waxtaan ak yow rek sëñ bi dana feeñalaat lu indi loola ndax boobu ñu ngi waxtaanee fee nga jànge muy bambu sa sëñ sëñ Muxtaar si ñu gën koo xam ci njool jaab yi waaw dëkkab sëñ bii. fekk sa fekk sa bëgg alxuraan ak ni nga ci mel ak bis bu set ni nga yëkkatee alxuraan ak ni nga ciy waxee ak ni ciy soññee boo gisee ku ko man mu mel ni yow da nga ko mënul boo gisee ku mën alxuraan da ngay mel ni yow mënoo ko. dafa mel ni yow amoo ci jaar jaaruwaay man loolu dama ko seetlu te fi nga ci jaar tey bu ñu ko doon nettali sax ci dëkk bii dana am ñoom xam dana leen bett ci jaarukaay bu yéeme ba nii nga xëyee tey dellu Saalum na nga daan def bambu ndax ki gën a goree mooy ki nga xam ne wattu nga alxuraan ci moom du xamatoo kum doon kooku ku gën a goree waaye sëñ bi ki ko doon jàngal muy sëñ Moxtaar si ci yéen fi ne boo tuddee sëñ bi ñun ne xayartu ndax xam nañu ko leen sopp la te sañ maxtar si moo jëmbat loolu sëñ Fallou ba mu ko fa yóbboo sëñ Moxtaar si moo jëmbat loolu ndax moo def ci moom wan ko melokaan yoo xam ne waa dëkk ba wan ko melokaan yoo xam ne buy waxtaan ci ñoom sax fi muy àgg ci waxtaan ci ñoom sax du fa àgg ci sëñ Fallou bi ndax melokaan yu mu dem ba jëmbi jamono mu delluwaat fa ba mu fa delloo gis na daara ja raaf na lu am lu mu yëg waaye nag gis nga ni ko firee da koo firee nii sëñ Moxtaar amul doom ju dégg nga de daal na sëñ Maxtaar doom ju góor mu bëgg a taxaw taxawaay boobu doon doomam ju góor delluwaat fi ne ku fa dem ba gis bâtiment yi fa mu toll ak melokaan wa koy def ak ci definu liggéey wi ak melokaanu liggéey wi li nga xam ne moo ci firnde ci yéen bu ngeen génnee tuuti jël leen seen bët ngeen doxal ko ci wetu jàkka ji da ngeen gis poto yu tëdd na sàtt ëpp na fanweer moom la bëgg a samp dëkk bi ak biir daara yi boo gisee mu indi wax jooju te yéen xam ngeen ne tawaaridul xawaatir araab yi dañoo wax ne lu am solo la ñaari ñaari xalaat yu ànd moo tax mu indi leen loolu da ngeen a ñëw ci koo xam ne da ngeen sipp seen i bagage boo xam ne fekkoon ngeen yor yor bagage yu mel noonu ba ma àgg ci léegi di ko wax ne ko nii la sëñ bi fayee ci sa doom jii ni ci sa wet yàlla na ko yàlla dolli kàttan muy soxna benn fàll mi ngi fii di gëm ak mu mutut fukki fukki mu yor daara joo xam ne àdduna bépp xam nañ ni muy doxee bu safar ñëwee ci la tari tareem saa su ne safar lay safar jii ngeen tànn yéen ngir def ci seen tari bi moom safar lay tari moom itam teewee naa tari bi ay yoon yoon ca ndakaaru teewe ko fii Touba ñaari yoon lañ koy def teewee naa ko fii Touba fii lañ ko defee ci ëtt bi ci ëll bi gone yi bu ñuy tari seera bi day daw hifzan wa tilawatan wa tajwidan buñ ko munta firi ñoom gone it bu ñuy jàng wa tafsiran ci yow bi koy déglu te loolu ci biir kër këram la xewee loolu sëñ jili indil ngeen jëmm mbiram barke sëñ Tuubaa baariha waa askanta daara baaniha kon mu mel ni sëñ bi ñii de li ñuy dox sëñ Muntaxa dégg na ko ànd na ci sëñ Bassirou Sëñ Bukhari si yëkkati ci ay kàddoom waaw moom xam naa ne eh, ñoom wuur na ma ni yeexalu nañ sax teew gi ñu teew ci yow ah, eh, eh, te sëñ Xaadim mii moom ku ko gis jotaay bu mu ànd lu mel nii rek ku ne xam na ni alxuraan ko tax a jóg ci lay liggéey ci lay xëy ci lay gont foo ko gisee rek loolu wér na rawatina sëñ jili mi nga xam ne sa leer gi sëñ mu jaaroon na ci moom mu taxawaay ko taxaw bu rafet nee na yéen li ngeen di dox mu gën ci lépp moo tax ku ngeen ci boole rek dimbali ngeen ko sëñ Adama si xam nga moo doon xalifa sëñ Mor Xari si ku ma ñëw ci kilifa yu baax yi ci moom ngay dal ba mu fa jógee nag léegi ku ñëwati ci sëñ Maxtaar ngay dali te sëñ Maxtaar moom ab jàngalekat la woon boo xam ne bii fonk dara néegam boo demee ganaar yi rek ak taal taali taal yi njël yi daan def gilit yi ak yooyu yëpp da nga da gis ni mel ci kii waaw ba sëñ mi am na bis bu mu fa ñëw boo xam ne bii mu ngi tëdd ci lalu sëñ Maxtaar man maa nga nekk ca biti di ko seen mu sonu nii waaye néeg bi daal sëñ bi darab ba laal eh, mat laal darab ba ca daanaka ab dara ñëw yi njool jaabi moom xamutoon yooyu moom léegi nit ñi nag ne ko ah, bi kat gannaaw léegi moom kilifa yi ku baax ku ñëw ci yow lay dal ci hmm. war nga topp tawaat barab bi ndax ñi am fu ñu hmm. ci la sëñ Maxtaar tabax ab tabaxu kaas carré ñu xadde ko seng ci laa ko ne nag néeg bi sosoo naa lal bi néeg boobu néeg bi loolu loolu ma ko néeg bi sosoo naa lal bi ci laa ñëwee fii nag doon ko topp soo nga ko waxee rek waaye mbir ma kii man da xew ndax sëñ Murtala dafa ñëw ci takkusaan nga xam ne kër gi ñu ko dalal teg fa ak gongu lal ko mu toog ca di feexlu dugal duggagul ci néeg bi booba néeg ba lal bi ñëwagut waaw lal bi ñëwagut keroog am na safoor bi ñuy wax Ndimbalaan xam nga dëkk yi àll yi mu déggee oto rek ñoom ñëpp dañuy daw di seetaan Omar bu ma saa ñëw ma ngay gaare ji ca escale ba ca fa ñuy fa nit ñay bari yoon woowu nag mu ñëw buntu dara ji ñu di corne ñu daw ñu dong yi ñu daw ñu ngi jàng marax ñi di kii ñu daw. Hmm. ñu ma dégg ñu ñuy tàmbalee di laajte ci buntu kër gi naan fi mu tukkari fi mu tukkari. ma daal di dem. Hmm. mu ne ma lal bi. Hmm. yaa ko moom. Koungheul lañ ma ko joxe ci ngoon ma ndaale ko. nga xam ne ci bis boobu sëñ sëñ sëñ Moutla. ca la ñu wàcce lal boobu jaarale ko ca bunt ba ca gannaaw. ñëw samp ko ñu néeg bi lu jiitu sañ sañ mbutu laa di di di dal waaw xam nga loolu ah jógewul ci keppaar gi mu ngi feew lal bi noonu la demee sëñ Adama si wax na ma ci wax yu doy waar booba dafa fekk moom mu fa fële dëkkam boobu ci Mbabane ñëwoon Daaru Salaam ak sëñ Maxtaar Mare moom yi mi daan naafile fii ñoom ñoo ñu yooyu foofa la leen fekk. Mhm. ñu ñëwoon siyaare sëñ sëñ sëñ sëñ Mourtala bay dellu ci seen dal yi. Mhm. fekk boobu nun noo ngi jàng marax mhm. ñuy génn waaye wax wax ju am solo lañ ma ko wax joo xam du ma ko fàtte mukk. yàlla yàgg رعاية القرآن ذي الايام